mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci programme Touba Pro te yi ñu toog ak sëriñ du Serigne Modou Khary Mbacké ibnu Serigne Mouhamadou Moustapha Falilou Mbacké ñu toog nag ngir waxtaane li nga xamante ni moo di waajtaayu màggal bu Serigne Moustapha Falilou Mbacké ñu jàpp ko altine fukk fan ak ñeent ci weeru muharram bi ñu nekk waaye di yemook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre atum 2018 ren nag di yoon bi ak ñu koy amal ñu toog nag ak sëriñ Modou Khary Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadilou Mbacké mu jiite comité organisation bu màggal gi sëriñ bi ginnaaw bu ñu nuyoo dañ lay bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi rek laaj bu njëkk bi mooy fan ngeen toll ci waajtaayu màggaluk Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadilou Mbacké jàpp ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre atum 2018. ginnaaw bu yàlla julli ci bi alayhi salaatu di sant sunu yaakaar tey ëllëg di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñu ngi nuyu mbooleem internet yi nga xam ne ñooy faral di seetaan tubaa Argentine TV ak Touba Pro ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm fii ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha Falilou di am mbégte bu baax ci seen teewaay fii ngir lépp jëm ci yaatal liggéey bi nga xam ne moom lañu suñu kilifa yi jox ngir ñu yaatal ko màggal gi nag euh, programme bi tàmbali na def na daanaka semaine bi yëpp ci màggal gi la bokk léegi ndax bëri na ay xew-xew yuñ ci amal démb rek def nañ fi benn journée xasida boo xam ne seeti sëriñ Mouhamadou Moussa Fall li ñoo ko organisé woon euh, suba euh, dimanche bi tamit incha allah war nañ caa def ak conférence jour magal gi door a ñëw fi mu nekk nii daal wàccaay yëpp ñu ngi ci nekk nii foofu lañ tollagum ci waxtaan wi. lu jëm ci wàllu administration bi muy ci li nga xamante ni mooy commune bi ak ba la ko féete kaw fan ngeen toll ci waxtaan wi ci comité organisation bi ndax mën nañ wax ni lépp jàppandi na ci wàllu équipement yeeg euh, courant bi ndox mi xëy ni taataay am ak euh, nettoyage dëkk bi. waaw wàllu organisation bi wàllu jëm ci wàllu état bi nag chaque année ni ñu koy defee def nañ ko ndax at mu jot dañuy am benn CDD boo xam ne Mbàkke lañ koy def ci njiitul préfet ak sous lépp loo xam ne màggal gi tiwoo na ko waxtaan nañ ci comme ni ñu ko daan defee chaque année waxtaan nañ jël nañ ay dispositifs yu am solo yoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu ko respecté dana am solo ndax lépp lu jëm ci wàllu comme mbooloo fay daje te bis la boo xam ne ñëpp dañu ko bàyyi xel te fu fu nekk leen nit di jóge di ñëw ñooñu balaa ñëw ñëw dañ leen war a waajal waajal gi nag ci anam yu bëree bëri waajal leen ci wàllu seen nekkuwaay waajal leen ci wàllu sécurité waajal leen ci wàllu dalukaay comme ni ngeen ko xamee tey ji sax bi di ñëw ci ngeen fekk ñuy defar nettoyer quartier bi ngir euh, taalibe yi ak gan ñi bu ñëwee man fay nekk nekkin wu mucc ayib ndax jamono ji mu tollee tombeel moo tax ndax fi mu ne ku ne xam ne ne ci jamonoy nawet lañ nekk ndox mi taw bi ak taataay yi bëri na comme ni dëkk bi ni ko xamee rek du kenn du ko jàngal ndax gis nañ li fi am loolu yëpp nag waajal nañ ko ba waxtaan ci ak ñoom am na ci ñoo xam ne tàmbali noonu ñoo def lañ waxoon li ci des nag ba tey am na ay manquement waaye bëreetul te it bis bi ak seegul wax dëgg yàlla mu ngi dox bu baax ku nekk la nga jëloon ci ay engagement ñu ngi ciy góorgóorlu ñu ngi séntu nag li ci des di yaakaar ne dinañ ko mottali incha allahu rabbi ku wax Cheikh Mamadou Moustapha xam ni moo njëkk a wuutu waajuram Cheikh Mamadou Fadel Mbacké 1968 ba 2000 bu ma juumul mooy nekk moo njëkk nekk premier xalifa bu Serigne Mamadou Fadel Mbacké tey jii boo ñu doon wax jëmm jooju mooy kan loolu na ciy wax ci moom. waaw jëmm jooju de moom euh, ku neex la. waaye itam ku naqaree waxtaane la ndax léppam day njariñ léppam it day ngërëm euh, bis bii ci la bokk dinaa ñëw ci kanam incha allah euh, nit la koo xam ne dañ ko waajal waajal goo xam ne dafa bokk ci sëti Serigne Touba yi nga xam ne Serigne tubaa ñaanoon na ko boromam muy wahab lana suriyatan tuddimu al amalu saalix ya xadimu zuriyatan taybatan tujaddidu nahjan nabiyul Mustafa taj tahidu sët yooyu ci la Cheikh Mamadou Moussa Fall lu bokk doon koo xam ne it sëriñ Touba ci boppam moo ko defal lépp ndax ci gàttal ci tënk rek moo tànn waajuru mu jigéen di soxna bu sa jang soxna bu sa jang di doomi Cheikh ma Yaasin ummi jang ñu ko daan wax sëriñ Goyar yaakaar naa ñu bëri dëgg ni histoire ci yoonu murit sëñ bee tànn waajuru mu jugoon woowu ci euh, jox ko Cheikh Mouhamadul Fadal waxoon ca wax ju yéeme histoire du nettali am na yoo xam ne mën nañu su ko euh, biral waaye ci gàttal sëñ boo xoon na ne donte kenn la ca am ñëpp danañ ko dégg te waxe sëñ tubaa du tox sëñ tubaa itam moo ko dalal jàng moo ko neel moo ko ne baa comme ni mu ko nettaleel boppam dégg naa ci ab kasitam muy nettali biñ ko indee ci kanam sëñ bi sëñ bi daa jël alliwa teg luppam ne ko neel baa nee na mu ne cel mu ne ko neel baa mu ne baa mu ne ko loo bëgg mu ne ko xaalis akub ceeb mu ne ko soo ko naw mu ne ko soo nangoo jàng da ko am ku ne xam ne yaakaar naa ne sëñ Modou lu ne jafoon na ko waaye loolu moom jeexulu ko euh, doon it nit koo xamante ne bii kuñ préparé la ndax ginnaaw bi mu doomee doomi Cheikh Serigne Fadilou ñu tuddee ko it doomi Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadou Moustapha doomi Serigne Touba it jur ko muy Cheikh Mouhamadou Fadal bi mu génnee àdduna itam doomi Serigne tubaa moo ko taxaw muy Cheikh Mouhamadou Mourtada kon daraam gënul Serigne Touba. léppam Sëriñ Tuubaa la Cheikh Mouhamadul Fadal jébbal ko sëriñ Mouhamadul Moustapha moo ko yar lu bëri li nekk ci moom moo ko ci def daf ko yar ko ci diine fulla am jom lépp loo xamante ne bi jikku la joo xamante ne bi mënees na ko roy ci nit rek mi ngi woon ci suñ jàmbaar jooju di Cheikh Mouhamadul Moustapha mu doon koo xamante tamit gis nañ lu bëree bëri léeg-léeg ci jamono dana toll foo xam ne ba surtout nag ñi nga xamante sax ñoo féete bitim réew daana nekk ci ay jafe-jafe waaye it euh, daan nañu wax ni daal borom baatin la woon suñu borom may na ko loolu ba lépp lu mu soxlaa daa soxlaa jëf rek da daa toog fi mu daal jëfe ko ci loolu tey jii euh, muy loo xamante ni ci Sénégal xaj na sax duñu wax ni manqué na fi waaye kenn la woon ci koo xam ne daal bokkoon na ci njabootu Serigne Touba ko def rawatina ci kër Cheikh Mamadou Fadel Mbacké moom mu doon ko nag ci waajuram ba waaw loolu de euh, ku ne xamoon ko ci Cheikh Mouhamadou Moussa moom ci boppam day boo seetaanee ay vidéo am da koy faral di nettali bu yàggut rek am na bu mu ci nettali boo xam ne mi ngi wax ne Serigne Fallou moom ak ab nawet mas naa am ñu maral lool ñu dem ca sëriñ Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadal dem ci Serigne Touba ne de bi mu mu ne ko ba ñu waxtaanee ba mu leeral ko mbir yi nam demee mu ne ko dama lay boole ak Mikaayil mu yor ndox mi ba mu yàgg mu ne ko sax bàyyil ma boole la ak boroom lépp bi sëñ bi nettalee par nag mi ngi naan. loolee nag am na lu ma ci sëñ Fallu rafaatale te it doonoon nit koo xamante ne bii lépp lu mu daan def it wax na ne ci euh, gëm Sëriñ Tuubaa la ko daan defee comme ni nga ko waxee ci bitim réew histoire bi histoire yi bëri na ci lool nettali yi bëri na ci lool ba fii may wax yow am na ci ñoo xam ne boo demee dañ naan la maa fekkee ba tey ñu ngi dund fa mu ko defoo nag ñam ko defaloon ñam ko seqaloon ñu ci bëri ñu ngi dund mu doon loo xam ne itam ñun Sëriñ lañ ciy gis ndax ku ne xam ne ne Sëriñ Tuubaa bi mu jëflanteeg noon yi daan na leen ndax dañ ne ko woon du fi am mu ne leen dana fi am yaakaar naa am na fi fi mu ne ndax am gi moo waral jumaay Tuubaa ji moo waral jumaay Njaareem moo waral jumaay Ndakaaru ju mujj ji waaye bi leen sëñ bi daanee ci fi ñu ko fekk si bàyyiwu leen da leen dëkkuwaat it nag wax ne leen dana leen daani ci seen suufee ñoom mooy li sëñ bi di wax naan inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li malikin muttara loolu dana woon danaa waqante ji ak ñoom ci seen suuf ya mooy seen seen seen fañ dëkk ñoom waaye loolu it pour mu am ndax fii ñu nekk nii ay taalibe fi jóge ñoo xam ne dañ leen a defar ba duñu yàqooti ndax am na ñoo xamante ni bi bu fekkee ne da jóge fii dem ci réewu nasaraan yi ak niñ bëree pexe ak niñ bëree moyen ak jamono fi mu toll fi ne bu fekkee ne dem nga te waa waaji luñ la rek waxuma la na nga meloon waaye dinañ la mujj sot ba dugal la ca lañ mel waaye nag ni sëriñ bi defaree mooy ñu jóge fii di dem ci ñoom dañ leen di waajal ba kenn du leen mën a soppi waaye nag ku jaxasoo ak ñoom ñu soppi la te li ñu lay soppi mooy dugal lu ci lu baax ndax eh, nit tubaab yi ñu ñeneen ñi nga xam ne xamuñu woon suñu tubaab ñu ngi koy xam lan moo tax ñu xam ko mooy ñi fi jóge te ñu defar leen ñu dem foofa waaye bu fekkoon ne tamit dañ faa dem rek te amuñu lañ soxla lañ soxla mooy war nañuy déplacé wu war nañu am ay kër war nañuy mën di dawal ay oto war nañu mën di jënd ay këri Sëriñ Tuubaa te loolu bu ñu ko amul duñu ami kayit bu ñu amut kayit duñu ko man faaw ñu am ay kayit yoo xam ne dañ leen di régulariser ñu mën a am ay droit foofa ngir mën a saxal liggéey bi Sëriñ Tuubaa boobu ci la Seex Mamadul Mustafaa Falilu nag suñ boroom bokk ci ñi nga xam ne dañu fa war a dem pour loolu mën a am moo tax fu masaan dem ci àddina rek lañ li ci ëpp ci li ñu ko daan jooytu mooy wàllu nu ñuy def ba am kayit ak wàllu nu ñuy def ba am ay kër ak nu ñuy def ba mën a yaatu foofu loolu nag jaayir mënu ko baatin dëgg moo koy def ndax tubaab yi ak réew yi nasaraan bu ñuy def seeni loi dañ koy def ngir ñoom waaye ñun taxu ñoo jóg waaye nag fuñ ci masaana dem bu sëñ masaana àgg fekk ñu tëral seeni loi bu taalibe yi jàmbatee sëñ bi sëñ bi dana ñaan ci barke sëñ Tuubaa dogul leen ne leen balaa mu fiy ñëwaat déwén di ngeen am ay kayit wala di ngeen am li ngeen soxla ay kayit moo ci gën a siiw waaye moo ci gën a tuuti ci la mu fa def ci ci ci ay kéemaan kéemaan yooyu nag bayit yu ma la wax rek lay firndeel kon sëriñ bi lañ ciy gisaat ñun xam ne Serigne Touba moo dul kenn te kenn du moom. ñu gis ne tam moom itam formateur la woon ndax donga yi xëy ñoo woon ci kër gi amoon na sax bu dee ci wàllu maçon électricité ak lu mën a doon rek moom wujj gaaniwu ko woon formé na leen ba gamaat sax tuddi nañ ko ko mu bokk ci ñi nga xamante ni ci sëti Serigne Touba yi wala ci ci sëti Serigne xamante ni seen bàyyi wàcc na wàcc leen fii ñu sémbu juma iniquiri ko ci seen seenuk ay lu ñëew la ci ñu ko def moom bokk na ci moom Cheikh Modou Moustapha waaw Cheikh day doon koo xam ne suñ borom da koo dimbale mu doon sëriñ bu am vision ci àdduna ndax sëriñ la boo xam ne li mu tabax ci ay daara kenn xamul lu mu toll li mu tabax ci ay dëkk li mu sañ ci ay dëkk booy xool dëkk boobu ñuy wax saam yabal mooy quatrième capitale mouridisme ginnaaw boo génnee Touba génne Daarul Moxti génne Taïf mooy beneen dëkk bi ci gën a rëy ci ci ci capitale te kooku surtout sëriñ Touba ko sañ ci muy Cheikh Moussa Fallou ba mu ko sañcee tamit lépp lu fa war ci infrastructure moo ko fa def ndax nit la koo xam ne yemutoon sax ci ay tabaxi daara ak jumaa waaye da daan tabax sax ay ay hôpital fi mu tokki ne ay nu centre de santé yoo xam ne bokk na ci histoire am yu bëri yoo xam ne moo ko tabax bàyyi ko fi lépp nag def ko wax fu lillahi nga xam ne lu ci ëpp ay njabootam sax séeruwuñ ko ñeneen na ko géré te yàlla ndax yàlla rekk moo taxoon mu ko doon def quartier bii di xaaxira tam nekk ci biir Touba mooy surtout Serigne Touba bi nga xam ne moo fi sanc quartier muy xaaxira mu dëkk fa ci ndigalu Serigne Fallou ak ay njabootam kon Serigne la woon boo xam ne bu am vision la woon bu xamoon adduna la euh, bëri na it yu xew ci jamono ji fi mu nekk nii ba koy xalaat yàgg na lu mel ni fondation fondation Cheikh Mamadou Fadal moo ko njëkk sanc lii di am ci màggal itam ñu koy wax daayira turandoo loolu itam moo ko njëkk a créé ci Kazu Rajab lii ñuy wax ci ci conférence jël conférence euh, suba la màggal nga jël ko tuddee ko kenn ci njabootu Serigne Touba ngir loolu ngir jokk mbokk la ak rattaxal ab diggante loolu itam moo ko njëkk a créé ci yoonu murit ba tax na loolu yëpp ñëpp nga ci ñëpp ngi ko ciy roy léegi muy sëriñ boo xam ne dafa xamoon jamono xamoon adduna daan daan daan xettali nit ñi nag ci domaine bu nekk wax dëgg yàlla waaw euh, ginnaaw bi fi moom du Fadal jógee 1968 tam ku ne xam ne ne kër Sëriñ Fallu yi ni mu mel nii tey moo ko def taaral ko la ca war a dem lépp mu def ko ca euh, ba bi muy génn àdduna kër gi nga xam ne moom la amoon Dakar muy padduwaa nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci moom da koy jëlaat def ko kër Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne moom mbiram léppam Serigne Fadlu la woon dara ndox ak njaboot tamit naan duma leen fi bàyyil dara de lu ngeen di donn waaye nag dinaa leen fi bàyyil sama jëf jëf jooju nag yaakaar naa ne fi mu ne relation ak digganteem ak eh, kër kilifa diine yi mën nañ ci jàpp sax eh, maa ngi gis benn photo boo xam ne mi ngi ko ànd ak eh, Serigne Cheikh Awa Balla ak Alhaji Mame Thierno Mbacke moom Serigne Cheikh Awa Balla loolu ca France réew Euh, relation bu rafet ba Serigne Mouhamadou Fadil sax tudde na ki nga xamante ni moo di Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké doom mu relation boobu tam noonu la ko demee ci yeneen kër yi ba waaw relation bu ak këri yi moom lu am solo la ci lu lu mu daan doxal la lu mu daan doxit la lu ko ñoroon la itam boo xoolee ñi mu seqal Serigne Touba ñu ci bëri jaxasoonte nañ ci biiru njaboot ñu tuddee nañ ko ay doom ñenn ñu tuddee na leen ay doom daan doxalin seen diggante ak ñoom waa kër Serigne Fallou itam. ñoom it koo ci dëkkoon micro comme nii may waxee ni tey laaj ko sa relation ak Cheikh Mamadou Fadal si moom Moustapha Falilou muy relation bu rafet noonu la ko doxalee woon it ak mboolem mbokki Serigne Touba yi ñëpp nga xamante ne bii euh, ba ci seex yi Serigne Touba am na ci ñoo xamante ne bii tudd nañ ko tudd nañ ko ay njaboot. noonu la demee woon ci kilifa diine yi turuq suuf yi ci Sénégal yëpp fenn fu ci ne sëñ Modou amoon na fa ay relation ñooñu ñëpp it ba tey ak ñu ngi koy am ak njaboot gi kon moom mbir la mbiram doon koon ku xatal ku yaatal la woon. ku yaatal la woon ci bépp anam nag wax dëgg yàlla ñépp tamit koo ci masa koo ci jàkkaarlool rek bu la waxee ci sëñ Modou da ngay jàpp ne moom rek la seqaloon teraanga ci loo xam ne sax ñoom daawuñu ko yëg waaw loolu moom relation bu rafet la woon boo xam ne amuñ ci den lenn lu ñuy luñ ci kii. waaw laaj mujj bi rek bu fekkee mu la ci dolli mu jëm ci tam ku fonkan li xam ne moo di nit ku yiw la fonkan tam ku bëgg col gu baax ndax euh, mos nañ koy siyaare ji ci saam googu ngay wax ki ñu àndaloon lam sol xaw a doon saayire loolu moom sofër bi dañ ko wul agsi maanaam bëggoon na nit ko daal muy solu bëgg na tamit di am xam-xam. waaw moom day nit la koo xamante ne bi nit ku ku civilisé wu la woon ci jëmm ndax ku ko mësaan a gis it da koy sopp ndax aw melokaanam ndax loolu la ndax doomu aadama ci boppam la suñu borom teral wala xad karab naa bani aadama wa xamalnaahum fil barri wal bahri wa rasaqnaahum min at-tayyibaat suñu borom it wax ci alxuraan ne dafa bind doomu aadama ci gën gaa rafeti melo laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwimin waaye nag su ma radadnahu asfala na doomu aadama mooy jël boppam moom du suuf ba gën a suufi bàyyi ma ndax doomu aadama ay nit bu ñu àndoon tey di ñëw ka nga ka gën a silwiise boo ko gisee moom ngay gën a fonk waaye nag lay tax nga mën a jax soog moom ko lay doon nit ki boo ko gisee sopp ko am na ñoo xam ne boo leen gisee danga leen sopp waaye boo jaxasoog ñoom xeeb leen Serigne Mouhamadou Moussa Fall nag boo ko gisee ci jëmm da nga koy sopp waaye boo jaxasoog moom da ko naw ba dootu ko mën a bàyyi moo tax noonu la fonk yoon boppam fonk itam nit ku fonk boppam waaw boo gisee comme li nga wax ci dongo ci ci ci dongo tarbiya ñi nga xamante ni bi dañoo nekkoon nag moom euh, te génn ca daara ja fi mu nekk nii booy xool ñu ci bëree bëri lépp lu ñu def ci kër gi ña ci génnoon ay produits lañ yoo xam ne ñii léegi ay électricien lañ ñii ay maçon lañ ñii ay ay ay ay ay ay ay polomier lañ lépp bépp doon boo xam ne daal tey kër gi soxla nañ ko ci dongee tribu yooyu mu yoroon lañ jóge euh, booy xool am na suñ euh, frère ku ñu wax Serigne Cheikhouna yàlla na ko yàlla yërëm te xaari ko àjjana ñoom ñëpp seen sànce yi ñu daan am daanaka waa kër gi ñoo ko daan tabax boo demee dakaar tey fu mel ni Sacré-Cœur 3 la ci ëpp seriñ boobu moo ko tabaxoon te ñi ci ëpp ci ci ñi ko doon liggéey ci donge Cheikh Modou Moussa Fall yi nekkoon ci daara ji lañ ñu doon nit ñoo xam ne ñoom dañ leen a programmé formé leen boo ñëwee it ci Serigne Cheikh moom Cheikh Amadou Moussa Falilou moom it ci wàllu yooyu muy muy yëngatu ñi jël ñi ciy liggéey ñu ci bëri ci dongay tërbiye yi nekkoon ci daara ji lañ nga xam ne génnuñ ci daara ji nekk nekk leneen dañoo génn ñu formé waale leen bañ mën a yor seen bopp noonu nag la daan doxalee ci ñëpp ci domaine yëpp day gis nit ku fonk boppam la bëgg bëggir ku fonk boppam nit ku am personnalité la bëggir ku am personnalité waaw kooku moom mooy Cheikh Mamadou Moussa Fall yàlla na ko yàlla fayal am na ci loo xam ne nag xëy na ñun ñun danañ mal placé ci wax ko waaye nag dañ koy waxee en tant que euh, taalibe bi Cheikh Mamadou Moussa Falilou ak naw guñ ko naw ak xër guñ guñ xër ci moom ak yaakaar ak doyloo guñ ko doyloo ci domaine boobu la ñuy wax waaye am na ci loo xam ne sax danañ xaw a euh, mal placé ci wax ko ñu ngi ciy jégalu bu baax. kon ñu la rek kàddu gu mujj gi nga tàggatoo ñu fàttali ni eh, mbokk yi rek incha allah kon ñaar ci weeru septembre mooy doon li waaye conférence sëti Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké ñu ngi koy jàpp ñu fan ak ñett koy jàpp mu tam euh, kon ñu koy fàttali ren fukki ak ñeent ñu buñ ko dalee def léegi nekk itam fukki fan ak ñeent ci weeru muharam bi ñu nekk kon ñu bàyyi la rek kàddu yu mujj yi jox ñëpp rendez-vous incha ca bis ba waaw kàddu yu yu mujj yi mooy kàddu yi sant leen gërëm leen ñaanal leen sunu boroom seen seen bii doon seen boo xam ne seen bu ñëpp di dëgg lay doon ndax mu doon bokk yi ci ci seen yi nga xam ne danañ gën a yaatal liggéeyub Cheikh sëriñ tubaab yi samay kàddu yu mujj it santaat mbokki taalibe yëpp santaat ñëpp ci turu suñu kilifa sëriñ Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne mooy xalifu Cheikh Maodou Moussa Fallou ak turu njabootu Serigne Maodou mu Fallou gépp gi nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñuy liggéeyal bis bi ñi koy woo ñëpp di ci fàttali ñëpp histoire bis bi nag lu am solo la ndax histoire bis bi mu ngi doon bi ñu ubbee jumaa ji 1965 ñu ubbee ji nga xam ne sëriñ Fadilu Mbakke dafa woon Cheikh mu Moussa Fallu ca wootu bu njëkk ba ci tënk rek damay tënk euh, daal dina ko jox ko ci aw sas sëriñ Mamadou Moussa Fallu itam sañc ay dëkk yu bari saam yebal ci la bokk bu ci la bokk ak yeneen jamono ci la bokk daan fa bay su masaana bay ba mbay mi ñor mu jël mbay mi ak fas ya ak njaboot goo ko bayoon jëbal si Moussa jëbal Cheikh Mamadou Fadal dem wutiwaat yeneen bi ñu dem ba jumaa ju noppi nag Serigne Fallou ne ko jumaa ji de jox nga ma ci lu toll ni ab soorool da ngay tànn nag soorool boo xam ne moo la ci gënal nga féetoo moom nga xam ne saa yoo ko rombee nga xam ne lii sa jëfa sëñ Moussa Fall ne ko tànn naa sorol bi féete yow nee na mu ne ko xanaa montre yi ci nekk ak xooy-xooy jee tax mu ne ko déedéet lu féete yow dama gënal lu féete lu wut ak yow bis boobu nag sëñ Maodo ne am na ci mbégte moo xam ne suñ borom rek la koy seedeel sëriñ Jiili nag daal nekk ak njaboot gi comme nag dàkk mbéggum sëriñ Moussa Fall moomu moo tax ñuy woote ñu jàppal ko bis bii ndax bis bi du bisu gane àddunaam du bisu génnu àddunaam bisu ngërëm loo xam ne sëriñ Tuubaa ko gërëm sëriñ fal du ko gërëmoon ci bi jumaa ji eggee moom lañ jàpp loolu mooy histoire bis bi nga xam ne at mu jot dañ koy màggal moom ci boppam sax da daan màggal moo doon magal goo xam ne la sept juin lañ ko daan wax daayiratu salaam ñoo ko daan def moo tax ñu sofaat ko comme ñoroot na ko ba mu ko daan def ñu wooteel ko ko moom ngir gën di yeesal ngërëm loolu loolu mooy histoire bis bii ñuy màggale si Moussa Fall ñu ci def it ay ay ay ay ay ndaje yu baree bëri war nañ ci def benn exposition bu am solo boo xam ne day waxtaan ci dundam waxtaan ci ay réalisation ku fi ñëw di nga gis loolu waxtaan léppam am na benn site internet am boo xam ne moo lañ ko ubbil léppam nekk ci muy borom xayra point com ku ci dugg tamit da nga gis loo bëgg a xam ci Serigne Moustapha Fallilou da nga ko xam ñu ci woo ñëpp di séntu ñëpp fukki fan ak ñeent ci weeru Tamxarit lay doon war a tombe ak la 24 euh, septembre incha allah fii ci Touba Xaahira ñi ñaan ku ci teew suñu borom faj seeni aajo saahir ak baatin barke Serigne tubaa jërë ngeen jëf jërëjëf mbokk yi kon ñu sant leen di leen jox rendu incha allah bu àggee ci bis ba muy doon kon altine ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru septembre atum 2018 ñu fas yéene ànd ak yéen nag ci mboolem kër njabootu Cheikh Mahamadou Fadil gépp waaye rawatina kër sëriñ euh, kër njabootu Cheikh Mahamadou Moustapha Fadilou gi ci siyaar yi ak li nga xamante moo di taalibe yi ak mboolem daayira yi xam ne deen ñëw ci bis bi sant leen gërëm leen bu baax jox leen rendu bu booba incha allah